dalee nag jàmm li mub ñi amee asthme mu ngi yokk feebar bi di gën a law uh, fii ci Sénégal daanaka téeméer goo jël fukk ya am nañ ko mu di jàngoro goo xamante ni moo gën a fës uh, ci tut tànk yi ci milieu scolaire bi téeméer goo jël fukk ak juróom benn si tut tànk yi ay asthmatique lañu ci jamono joojee nag ci àdduna wërngal këpp ñetti téeméeri million ci ay nit ñoo amee asthme lu ëpp 361000 ñoo si ñàkk seen bakkan ñu teewlu professeur Idrissa Demba Ba Ba di pneumologue pédiatre allergologue. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et on nekk na jàngoro bi nga xamante ni moom la ñuy gën a nemmeeku ci xale yi. te gis nañ ni lim ñi koy am mu ngi gën a yokk bu baax a baax ci àdduna wërngal këpp. te ñu toll ci trois cent millions. te lu gën a doy ci loolu ñetti junni téeméer ñoom ñoo ci daal di ñàkk seeni bàkkan te liim ñi gën a ñàkk seen i nag nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci réew mi nga xamante ni daa nekk euh, amuñu doole bu baax. fii ci Sénégal nag amuñu njàngat bu yaatu bi nga xamante ni moo ñu war a mën a jox firnde yi ngir ñu mën a gëstu bu baax a baax ana fan la toll. waaye am na étude bi nga xamante ni def nañ ko fale ci ñaaxaar nag ci loolu lu muy firnde mooy. boobu la étude lu muy firndeel daanaka téeméer yoo jël ci population bi fukki dañuy faral di dund ak boobu boobule jàngaru asthme te ci centre hospitalier d' enfants Albert Royer foofu nag ñu ngi nemmeeku ni cas yi ñu ngi gën a yokk bu baax a baax. te jàngat bu mujj bu ñu def nag jëmale ko ci yenn ci bërëbu jàngalekaay téeméer yoo jël daa nekk fukk ak juróom juróomi yëpp ñu ngi dund ak li nga xamante ni moom mooy asthme te daanaka bile jàngaro nag jafe na lool pour ñu gis koo xamante ni faj nañ ko ci ba mu wér keng. Parmi les phases d'accalmie, on parlera certainement de contrôle. Et de noter la notion de guérison dans l'asthme. On peut parler de disparition pour rester des années. fii lañ koy ndar képpee dig daje ci beneen numéro. Bonjour. Le nombre de patients atteints d'asthme est en hausse au Sénégal. La maladie augmente considérablement. L'asthme est passé à 10% et elle est la maladie la plus fréquente chez les enfants parce que rien qu'en milieu scolaire, plus de 16% des enfants sont asthmatiques. Mais au niveau mondial, 300 millions de personnes sont affectées. 361 000 en décèdent. Écoutons le professeur Idrissa Dembaba, pneumologue, pédiatre, allergologue. C'est maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et on ne cesse de remarquer une forte augmentation de la prévalence partout dans le monde. C'est une maladie qui a un impact négatif sur le plan socio-économique, sur la qualité de vie et maintenant on parle de disability adjusted life years, c'est-à-dire qu'on compte en nombre d'années perdues en incapacité ou en maladie lié à l'asthme et l'asthme occupe le quatrième rang parmi ces pathologies qui causent euh, impact significatif sur la qualité de vie. Au niveau mondial, on estime à près de 300 millions de personnes qui souffrent d'asthme et malheureusement, chaque année, 361 000 personnes décèdent du fait de l'asthme au niveau mondial. Et la majorité de ces décès surviennent surtout dans les pays à revenus limités. Qu'en est-il au niveau du Sénégal Nous n'avons pas de données exhaustive au niveau de la population générale, mais une étude réalisée au niveau de Niakhar, qui était ISAC, utilisant la méthode ISAC, a retrouvé une prévalence de 10% de l'asthme. Et je pense que c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la réalité. Au niveau du Centre hospitalier national d'enfants albérois, qui sont des statistiques hospitalières, nous remarquons une augmentation drastique n'est-ce pas, des cas d'asthme. On est passé autour de 2% vers les années 2010 à presque 4% actuellement en 2023. Et la dernière étude que nous avons réalisée en milieu scolaire montre une prévalence de 16% de l'asthme en milieu scolaire. Donc il s'agissait d'une étude faite dans cinq grands lycées de Dakar. Il est important de noter sur le plan sémantique que l'asthme est une maladie hétérogène habituellement caractérisée par une inflammation des voies aériennes, l'asthme est défini par une histoire de symptômes cliniques tels que la toux, le sifflement, l'essoufflement, l'oppression thoracique. Et qu'est-ce qui caractérise ces symptômes respiratoires C'est surtout la variabilité dans le temps et en intensité. Et ces symptômes sont souvent associés à une limitation variable des débits expiratoires. Donc ce qu'il faut noter dans ces de poussée et également par phase d'accalmie. Parmi ces phases de fossé aiguë, on parlera de crise d'asthme et parmi les phases d'accalmie, on parlera certainement de contrôle. Et c'est difficile de noter la notion de guérison dans l'asthme. On peut parler de disparition ou en tout cas de, de contrôle qui parfois peut rester des années. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pour un nouveau numéro.